su boobaa yaa ngi ko def ci turu ñeneen waaye defoo ko ci tuuru sénégalais yi kon Mamadou Lamine jàlloo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax te di sàkk loolu mu sàkk noonu euh, député yi nañ ci taxaw dimbale ñu ci mu deñ ndax loolu dëppoowul ak càkkutéefu sunu xalifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ma rappelé waat ne ànd sàmm jikko yi dañu def tour ci cinq département yi ci Sénégal yëpp wax ak sénégalais yi dem ci këru diine yëpp këru diine gisee xalifa yi njaasaan ñu dem fa seexal bekkaay bekkaay signé ne dafa bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen ñu dem Tiwaawan sëriñ Babacar Si Mansour bind ne dafa bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen ñu dem Touba sëriñ Muntaxa Mbàkke bind ne dafa bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen ñu dem Canaba sëriñ Abdourahim Seck bind ne dafa bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen ñu dem Medina Baye sëriñ Maahi Ibrahima Niass bind ne dafa bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen ñu dem Medina Gunaas sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane euh, tabaarakallaahu bind ne dafa bëgg ñu criminaliser Cheikh Ahmad Tidiane Ba ñu criminaliser ngóor jigéen association yi kuréel yi ndaw ak mag góor ak jigéen yépp ne dañoo bëgg ñu criminaliser li nga xam ne mooy ak ngóor jigéen léegi nag sénégalais yi mënuñoo sàkk lool ba noppi ñuy bàyyi ci biir luwaay yi benn tomb boo xam ne dafay ñuul di wax ne kat bëgguñu ñu wax dara ci góor jigéen dañoo dépassé bëgguñu ñu dénoncé kook ñu sikkal leen waaye dañoo yegg ci état bu dañoo bëgg ñu criminaliser ko point foofu la ñu yegg te incha allahu taala ànd sàmm jikko yi ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy dox defe naa ñu ngi toll ci finaliser euh, document bi war demaat ci këru diine yi nga xam ne ni ñoom ñoo si ñoon wax leen lan la ñu liggéey war dem nag jébbal ko assemblée nationale incha allah loolu nag jur na ba léegi bàjjenu góor jigéen ya nekk France noppiwuñu seen gémmiñ selewul xam ngeen bàjjenu góor jigéen yi nekk France bu yàggul la ñu bindoon di demander ministre intérieur pour mu interdire personnes yu bari ñu duggati France ca biir ñooña mu tudd ci xalif général des Tidiane ne dafa bëgg ñu interdire ko mu bañ a duggati France tudd ci sëriñ Abdourahim Seck seen tour seexal bekkaay bekkaay ñu tudd ko tudd yeneen ci ay ay activiste kii yeneen i kuréel ne dañoo bëgg ñu tere leen ñu dugg France gannaaw bi rassemblement bi sénégalais yi génnoon def nga xam ne amul benn couleur sénégalais yëpp ñoo génn ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngóor jigéen léegi nag góor jigéen yooyu nga xam ne ñoo waxoon waxati nañ ajjuma ji weesu lañ génnewaat beneen communiqué sénégalais yi nañ ma déglu bu baax ajjuma ji weesu bàjjenu góor jigéen yi génnewaat nañ communiqué ne léegi dañoo bëgg sax gouvernement du Sénégal yenn islamiste yu radical yi bañ ngóor jigéen naan nañu leen def lii yéeg lii nañ leen te nañ leen jàppe léegi ay terroriste déglu leen de góor jigéen yi ñi ngi sàkku ñi bañ ak ngóor jigéen ni dañu leen war a fitnaal ci Sénégal nañ leen jàppee ay terroriste te ñett réew lañ génnee ñoom ñoom union européen la ñett réew lañ génnee ci list réew yi nga xam ne ñu ngi toléré ngóor jigéen Sénégal ci la bokk nee Sénégal réew mu danger la nañ ko génnee ci réew yi nga xam ne tey am nañu benn ubbeeku ci ngóor jigéen Sénégal lañ tudd defe naa Bénin ak Ghana ñetti réew yooyu lañ tudd mais ñoom ci seen communiqué bi dañoo jaajëfal décision boobu noonu la ñoom na góor jigéen yi waaye ñaari réew ya ñoru leen menn réew rek leen ñor pour ñu taxaw ci muy Sénégal Sénégal la ñu taxaw insister ci wax ci ba yegg ci lu garaaw góor jigéen yi xam ngeen lu wax dañu ne nañ taxawal benn collectif Sénégal góor jigéen yi fippu fippu pour jëmmarloog ñii di leen bëgg a baare góor jigéen yi ca France ñi ngi demandé góor jigéen yi ci Sénégal ak ñi leen di jàppale ñëpp nañu taxaw nag def benn résistance nañu fippu def fas ak ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di contrecarrer ma ne leen aywa yegg si leen ak jàmm bienvenue fii ngeen ñuy fekk yéen ak ñi leen di jàppale dafa yomb lool ngeen toog ay yambar yu toog France ak yambar yu leen di jàppale ci Sénégal toog naan waaw góor jigéen ñi nañu fippu euh, xaw ma lan ak lan la acca fippu leen lu ngeen di fippu léegi na ngeen fippu taxaw bañ jëmmarloog ñi nga xam ne ni ñoom ñoo leen di bëgg a baare sénégalais yëpp ngeen di jëmmarlool quatre-vingt-dix nangam pour cent ci Sénégal ñoo bañ ak ngóor jigéen gis nga Sénégal du France Sénégal du Belgique Sénégal du Londres Sénégal du Suisse Sénégal du États-Unis Sénégal du Maroc Sénégal du Ghana Ghana sax ñi ngi bañ Sénégal du yeneen réew yi am tolérance ci ngóor jigéen Sénégal ba léegi fa nu taxawoon la nu taxaw dañ ne góor jigéen ca àll kutiya ca àll kutiya la wax te loolu noonu le ñi gën a am baat ci réew mi jiite njaboot yi ñoo taxaw ne góor jigéen yi ci àll kutiya muy xalif généraux yi nee nañ góor jigéen yi ci àll kutiya ak ku leen di jàppale nag ci laay daanelee sama kàddu maire Thiama dikk na ci ma koy jaajëfal ci encouragé gi mu encouragé ki mu tudd ci mu daw ci mu bañ a dellu ginnaaw waaye ñun tamit ñu ngi koy xamal ne ko du ñu dellu ginnaaw moom it bu delluwul ginnaaw dafa am benn théâtre bu mujj bu ñu joué Wally Seck lay waxal mooy concert bi mujj am ñu def benn technique wu xaw ma lan mu niroog drapeau boroom ñaari tur yi sénégalais yëpp di ci coow man ñu bari dañoo xëy yónnee ma ko ne ma ah, gis nga waa ji li mu defati fekk ñun ci cadre ànd sàmm jikko yi ay nit ñu mature lañu duñu ay gone du ñu ñuy làmbatu ñun dañoo yor suñuy document sunuy preuve taxawal collective avant muy tudd ànd sàmm jikko yi collectif non à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité kon ñun du ñu jaawale ay drapeau góor jigéen moo tax bi mu amee immédiatement ci laa ne leen attention du luy ñuul lu nekk na këriñ la sama page Facebook laa ko bind neleen bu leen dugg ci biir pièce lu niroog drapeau góor jigéen kon awma problème ak lu mujj lii ñu naan ay dañ ko accuser loo xam ne ni amul erreur technique yu mel noonu loolu sama yoon nekku ci mais man maa wax ci li weesu ne Wally Seck moo fi def concert sol drapeau góor jigéen yi ñu ne ko arrête woote journée boo xam ne dañ ko tuddee xeex mbon gi te bu ko defaatoon suba ñu dalaat ci kawam moom waali Seck ma ñëw ma bu ko defaatoon suba. bàyyi turam mu dalaat ci kawam. bàyyi turam danga nga jàng alxuraan yàlla nee tooñ bàyyi turam Wally Seck doom la njur ko bàyyi turam ma Matar bàyyi turam ngir yàlla ak di mbiru sóor laay. Wally Seck da newu fi kan may faramason lan mooy góor jigéen te góor jigéen mooy ñaari góor yi defante nee naa ku teg sa bët wàcc liggéey lan mooy couleur man loolu am naa ko su ma xamoon sol ko yéen yow kay yaay def formation góor jigéen. Hmm? bàyyi leen Wally Seck mu naan leen mu wadd. bàyyi leen xale bi nañ ko bàyyi man maa wax loolu nañ ko bàyyi defu la dara waxu la dara ànd sàmm yi nga nekk sàmm jikko mais moom il n'a rien fait micro la indi way ah loolu mooy drapeau góor jigéen nañ ko bàyyi ngir yaa wala sooli mu dund nañ ko bàyyi kenn du ko gis ci góor ji ku ko gis man la faatu du am bàyyi leen ko ngir yàlla doom la jur ko man xam su may waxee doom la dama teg yow ci kanam teg Abdou Fall ci kanam teg keneen ci kanam teg ay doom doom la bàyyi leen doomu jàmbur ngir yàlla ji mi Rasulullah jàng yaa ma gën a jàng alxuraan foofu bàyyi turam loolu la ñaan waxal <laughs> xam nga yow duma ak yow. jombale naa ko sax sama bopp. bàyyi turam rek ñoo juboo sama xarit da ngay bàyyi turam rek. ma ñëw ci diggante Saar ak Caa ak Kër bàyyi turam doom la. d'accord yow duma werante sa jarbaat la. bu waroon werante ak yow duma bàyyi nga yeggal bàyyi naa la nga wax ba daaneel. dama bëgg a wax ne leen. li weesu woon ñun ànd sàmm jikko yi lañ doon wax damay wax en tant que Makhtar Sarr muy jël responsabilité ne duñu làmbatu ànd sàmm jikko yi mosul a prononcé prononcé yi ne góor jigéen la mosul am dañu wax ne dafa am ay actes yoo xam ne yuy promouvoir ngóor jigéen la loolu la wax ne na ko arrêté foofu la ñu yem ñun ñeneen ñu ko accusé góor jigéen ñoom ñoo xam mais dafa am drapeau yu ñu jël porté ko ci jour sol ko ci kaw seen jour boo xam ne ba mu ko defee ba ci suba sa LGBT yi ñoo bind ne ñu ngi koy félicité waxu ca dindiwu ca loolu la ñu wax ak yeneen yoo xam ne moo ko jiitu yoo xam ne nii mi ngi ko doon def ci ay acte loolu lañ wax ne na arrêté kuy mbokkam na wax ak moom loolu na arrêté loolu laa wax ne su ko defaatoon suba ñu dalaat ci kawam mais ku ko tuddee góor jigéen sunu yoon nekku ci mais damay wax en tant que ñu responsable ànd sàmm jikko yi man maay ki topp ci coordonnateur bi dañoo bañ ak ngóor jigéen ak lu koy promouvoir tey li mujj nii bu fekkoon ne dafa confirmer ne drapeau góor jigéen yi la kon ànd sàmm jikko yi ñoo ciy jiitu mais kenn dégguñu ci bal sax dañoo alerter ne attention buñ ñu dugal ci pièce léegi nag lu mujj yi buñ ko bëjjëlee ba ko euh, effacé li weesu dañ naan leen non dafa am loo xam ne preuve yi ngi fii amul wërantu làmbu daj la. xam ne nag yaa ngi koy défendre ci lu mujj li weesu tamit na nga ca wax ne ko arrêté am na loo xam ne nii làmbatuwuñ ko dañ ko am ay preuve gis ne am na ñoo xam ne nii dañ leen a bañ ci société bi muy ak ngóor jigéen am na lenn lu ñuy jëfandikoo ci seen drapeau seen mbir mi ngi affiché wu ci ay mbiram na ko arrêté loolu la ñu wax su ko defee nag nañu bàyyi suñu doom jeeg yooyu yooyu moom ngeen wax ko ñeneen ñi nga xam ne nii ñooy wax leneen mais ñun lii la ñu wax su ko defee nag ñi ngi jéggalu mbokk yi ci euh, kàddu yi di leen ñaan euh, ñu wëy di am vigilance ma arriéraat ginnaaw tuuti vigilance bi mooy góor jigéen ya ca France seen bàjjen yi nee nañu nañu am résistance fii ci Sénégal résistance bi nag fii lañ koy fekk ñun ay sëtu Maba Jaxu Ba lañ ak Cheikh Al Hadj Omar ak Serigne Touba ak Mame Bou Kounta lañ doon bañ démb tey ba léegi seeni sët moom lañ nekk di ko bañ te nag li ñuy bañ ñu ngi ko bañ ci turu diine ak ju mën ci doon nag ak ñu mën ci tudd amul lenn ci réew mi ku am benn ngëm-ngëm ànd sàmm jikko bu ñuy tourné dañoo dem ba ci ña gëmu diine ñu signé ne dañoo bëgg ñu criminaliser ngoor jigéen ña gëmu diine te boo sacré nga xam ni gëmuñu luy diine dañoo bëgg ñu criminaliser ngoor jigéen ci loolu la ñu nekk ci Sénégal kon lépp luy ngóor jigéen ak luy xeetoo ngóor jigéen ak lu koy promouvoir dañuy taxaw ne la arrête ak lu mën ci doon nag ak lu mën ci coûter nag dañ koy jënd ko defee ñu ngi jéggaluwaat bu baax a baax ci kàddu yi ñu dem résider lu si dugg ci suñ